pour ma parce que Gambie ak Sénégal ñun kay so lu Sénégal est lor Gambia so pour ñu nous cette affaire environnement amut bon na Gambia ça avons fait Sénégal le Sénégal defee bon na nous dina Nous Gambie so pour ñun ñaari réew yi ak réew yi Nous ñu ñu avancer environnement bi si suñ côté bi boobu dina am solo trop ah, dafa am solo meeting bi dafa am solo trop parce que loolu dafa ñu wane ne ñun dañ am lu bëri foog ñu am technologie ñu am capacité pour change leen def leen loo xam ne ressource dinañ jëriñ suñ suñ population bi so loolu dafa am solo trop. bi gouvernement Adama Barrow ñëw rek dañ gis ne. pour ñu euh, seet naka lañoo mën a coopérer ak Sénégal dañ signé euh, signetu accord yu bëri euh, bokk na ci affaire yi ressource naturelle former ministre signé naa moom waaye maa ngi maa ngi waxtaan suma naataango bi naka la ko mën a revisiter seet loo xam ne ñu ngi évolue pour ñu dugal leen foofu mu nekk loo xam ne dina njëriñ ñaari réew mi yëpp.